yàlla jaayante ko roye ci Touba ca kanam ci seenu doxin weer wu jot ñu joxe ku ne ñaar téeméer ñu fexe ba atelier ménage daal bu nekk weer wu jot nga joxe ñaar téeméer at mi ji douze mille bu ñëwatee ñu màggal Touba bu weer bi teroo ñu dëgg ci kër sëñ Touba yi e, saytu ko li nga xam ne sëriñ bi moo ko waroon a saytu ñu féete ko fa bi yàlla dogal xalaat boobu ñu antu ji ñu waxtaan ci ak mag ñi ñu mañ fi ñu fekk ku tedd leeral ko pas-pas boobu mu nangul ñu ko tuddee ko xidmatul xadim bi mu ko tuddee xidmatul xadim ñu ne nag kon léegi biñu demee sëñ bi dañ ne ko ne mboolem menuisier métallique yi ñu ngi ci ji na ci dëkk bi ñoo àndandoo yoon dañuy may fu métallique nekk ak noo fi nekkee ki njëkk sam place ci dëkk bi ne fekk yaa ngi ci kaw suuf ak ki sam place bi tey yoon mayuñu information boobu duggul sa nopp suñu borom dimbali ñu ci ñu wàcc ci eh, ñu ci baree baree bari ci dëkk bi ba yàlla dogal na mbooloo mi àgg fu kawe njort ndax mbooleem kuy métal ci dëkk bi rek yaa ngi ci biir lii firnde la ci ndax classique moo du Mbacké Thiam gii mel na ni bari na ñoo xam ne doon ci wàllu maam dañaan seen i setaat ñu ngi ci biir kuréel gi ñoo xam ne ñi leen jàngal métier ñoom ñoo leen jàngal métier waaye gis nga bu xëy jotee bu ñu ñëwee daanaka man mi gën a néew euh, solo ci mbooloo mi dama leen di sañ a defloo ak a dindiloo te lu ànd liggéeyal seen Tuubaa moo ko waral kóllëre gii nga xam ne mooy kóllëre Xidmatul Xaadim ak Tuubaa ca kanam it bi ñu xoolee ba gis xidma Touba ca kanam ni muy doxee ñu yëkkati woon suñuy kàddu ñëw fekk la ca daara ja ne la kat dañoo gis doxinu eh, Touba ca kanam mu am solo lool te ñu nag visé ca doxin woowa bëgg a fasante si yow yéen ak kóllëre bu ko defee liggéey bi nga xam ne jaante nañ ko liggéeyal sëñ lu ñu ci mënati bu ñëwee ñu fexe ba féete ko sëriñ bi yaakaar naa nga rafetlu ko lool doon si kat bi ñëwee ñu leeral ko mbooloo mi loolu moom mooy sabab lii maam daayira bi moom bi ñuy jóg kër sëñ Touba dong moo ko taxoon a jóg bu màggal jot ñu entretien waaye ndigal li njëkk am bi ñu sëriñ bi tuddee xidmatul xadim mooy jumaay Touba ji ci eh, jumaa ji la ñu njëkk a feeñal suñu liggéey ndax buntu yëpp si Abdou Lahad Mbacké defoon bu ñu njëkkee moom lañ seen Touba njëkk a tegtal ñu def ko entretien keroog bañ ko entretien mel nañu ne nee nañ ñu ba si fa def rek léegi ñu ngi koy soog a laalaat ñu jugee ca dugg ci biir kër sëñ Touba entretien ba noppi cantuk murit jàppuñu ak yëg yëgul bu liggéeyub tubaa ñu xooli bunt bee ca bàq ya gis ka na mu mel ñu ne kat nañ xool nuñ ko defaraatee ba ñu demee mbooloo mépp daje ne bunt bii ni mu mel nañ fexe mu dëppook jamono ñu daal di sasoo suñu biir dagg ay carte euh, seet nuñ ko defee ba defar bunt booba biñ ca jógee mu gën a see taw féexe ñu ne kat nañ dem daaray kaamil ndax ku liggéey kat sëñ tubaa liggéey euh, jumaa ja liggéey bàq ya war a nag liggéeyal sëñ Tuubaa këram gi daaray daaray kaamil ba ñu jugee daaray kaamil natt bilan ba fa nekk yëpp it ba xool ñëw waxtaan ceeg mbooloo mi ñu nekkat ba ñuy def loola ba ko si Abdoulaye Mbacké di def jamono moo fa tolloon te kenn ku nekk si ñun xam na ne kenn ku lay defar loo ci fenêtre naa ko amatul nañu seet nu mu toll ñu jaayante ko suñu biir bu ci amee ndigal yeesal ko biñ ñëwee eh, waxtaane loolu dem laaj ca ndigal eh, am ci ndigal eh, yàlla dimbali ñu ci baaxu sëriñ bi ba ñu def fenêtre fa nekk muy 86 fenêtre suñu borom dogal lépp sotti ba antu noonu Euh, loola it moom moo ñu indil lii tey bu ñu jigee ci loola ñu tàbbiwaat ci liggéeyam alxuraan bi nga xam ne tubaat ca kanam moo ko yëkkati di ko liggéey la Serigne Touba ci daaray alxuraan yi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi te lu ci nekk tey jii euh, su ma doon wax ci zaahir Serigne Touba bu fi nekkoon ab liggéeyam lay doon kon suñu borom dimbaliwaatee ba liggéey booba ñu ñëw fenca dana ci sant Serigne Touba bu baax a baax di ñaan nga ñaanal mbooloo mi li yéene ak suñu mébét ci liggéey Serigne sëñ Tuubaa gëtanuñ ci boppam ñu àgg te bañ am benn ndog suñu mag ñiit suñu borom yàggal leen fii ndax it li gën a jafe mooy dañuy toog seeni xalaat ak seeni i coono ak seeni i wërsëg te bu jëf jotee ñu mel ni doon ñu ci dara ñëw bàyyi ñoog lépp ñu ngi leen di sant di leen ñaan di ñaan suñu borom yàggale fi loolu wér ñoo ngi jéggul na kàddu bu baax a baax Mbàkke Bàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jëwriñ yi daayira xidmatul xadim bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem leen mën yi Touba tuubaay ñu yëkkati sama kàddu mu Cheikh Mamadou Fadi yi nga xam ne mooy njiital Touba ca kanam kàddu cant nag rek ak ngërëm ak seere seereel àdduna bépp ak fu murit mën a ne ak sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñ seen Tuubaa tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér seen taxawaay ak seen jëf ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi di wax ne tey ñi ngi fi daje ngir euh, ay mbaar yoo xam ne mi ngi jëm ci daaray alxuraan ndax ni ngeen ko xamee Tuubaa ci kanam dafay yëngu ci fànn yëpp lépp loo xam ne mën naa jëme dëkk bi kanam te buñ ne jëme dëkk bi kanam nag dañuy tàmbale ci li sa taxoon li taxoon borom dëkk bi sañ ci dëkk bi te mooy dëkkub lislaam boo xam ne rawukaayu lislaam lay doon dëkkub lislaam rek lay doon moo taxoon sëñ Tuubaa sañ ci dëkk bi buñ nee lislaam nag wax daaray alquran dañu daal di wax ne mooy berceau bi ci la lépp war a tàmbale Touba Ca Kanam ñi koy objectif am yi nga xam ne ci fànn yu bari lay yënguwaay bii di ci bu am solo muy atum ren bi ñu jëloon programme taxawu lu mat juróom benn fukki daara daara yooyu nag bu ci ne ak lam gën a aajowoo ci loolu nag tey jii ñu daje ngir mbaar yi nga xam ne moo jëm ci daara yi Touba ca kanam jënd matériel ngir fas ko yéene taxaw fekk daayira Xidmatul Xadim engagé woon bu yàgg di liggéeyal sëñ Touba waaye lëkkaloo woon ak Touba ca kanam woon ko ne lépp lu muy liggéeyal sëriñ bi fànn gi nga xam ne nii mooy seen domaine yéen su boobaa ñu ànd ko ak yéen te mooy lu jëm ci wàllu weñ ak lépp lu ci aju rek liggéey bi yaatu lool waaye ngeen def ko ci anam gu rafet tey jii fii ngeen yendu yéen ñëpp yow ñu jënd matériel bi jox leen ngeen taxaw ci ci nu mu gën a rafete liggéey baa ngi nii ñëpp mën cee teg seen bët loolu daal sëñ bi nee na sëñ Tuubaa mi tax ngeen di jëf rek la leen di bàyyeel la leen di seere rek di ko seeral Cheikh Mamadou Mountakha di wax ne tubaa ca kanam nag moom nii rek la bu ñu jógee fii ñu ngi jëm ci daayira bi nga xam ne moo lëkkale ñi nga xam ne ñooy plombier yi ñoom itam ña nga fële ca baar yi ginnaaw bu ñu installé juróom euh, juróom benn quartier tey jii mooy bu mujj bi ñu nekk fa ni bu sëñ bi jógee foofu la jëm moom itam day dem seeree li ji leen rek sant leen gërëm leen waaye taxawaay bii mooy booba kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sëñ Tuubaa mi tax ngeen di jëf mu fay leen ngeen ji fay te làqal leen ko fa yàq yéegu te di leen wax ne liggéey bi moom mi ngi nii rek moom moomu ko keneen moomu ko liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo liggéeyal yàlla ba fayee ko ñu koy liggéeyal moom itam ci himma te mooy yitte yi sàkku ngërëmul yàlla ci la woote woon yoon kon yoon waa ngi noonu yéen daal leen xam ne dog ngeenu yoon kon li ci des rek mooy dox yàlla na yoon wi euh, euh, leer nañ ci yéen te seenu dox gaaw lool te lu ngeen ci jële yàlla ngeen ko jëriñoo ci barkeb sëñ Tuubaa bi ne sant na leen jërëm na leen bu baax kon nag liggéey baa ngi noonu des na lu baree baree bare ñu gën a jaajuwaaj rek lu jàll rek ñu nekk ci leneen ba keroog rek sëñ bi am li mu bëgg nu itam nu amee ko nañ ko bëggee ci barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah man yu ni ko yow di ko wax fii. waaw loolu sax jërëjëf la. ah waaw ah? loolu jar na jël. waaw yow di ko wax bis fii ñu ngi koy kenn wax ñu wax ñu. ñu bëgg jaay Sëñ Tuubaa. lépp lu wax ñu koy ñu koy liggéey Sëñ Tuubaa. ci lu mel ne euh, Italie bi ak ak arab ñoom yëpp ñoo ànd jaayat na ko. ñoo ñoo loolu lépp soxlaat yi dañ ne boobu ñu ñëwee bu ñëwee ñu natt ko jël misir yi jox jox style bi bëgg ñu defal ko gis Sëñ Tuubaa loolu nag bu ñu ko bàyyi yoon waa ngi nii rek yoonu jëf jël la te kenn ko amuloo man ñëpp kenn ko defee la man rek bëgg dañ ko am kon sant nañ leen baax ni ko si Abdou waxee rek dafa maa gën a leer làmmiñ li ma xam ne moom la war a wax moo gën a moo gën a kii boo dafa jox soo kàddu bi ko dama ko dama ko jotti leen ndax léeg-léeg am na jox yoo xam ne ko kii sant le waaw maa ok ak ci muy hôpital yeeg daara alxuraan yi yi wala mu ñëw ci rek des nañ ni ñu ko defee nii rek waaw ndax kenn ko def appel ko ne mën ko kay na waaye amul njëriñ ci yéen lépp njëriñ mooy liggéey bii nga xam kenn ñëpp ngeen yendoo nekk benn loolu day lu rëy ci ñun ñi waaw ñun nga xam jaar suñu loxo ñu ngi ko seere Sëriñ rek moo doon keewam bàyyi fi lenn lu yor doon lu alxuraan ak ak bu ngeen liggéey li xam mooy ndaal yi nga xam ne donc yi jàng alxuraan ñu kerlu ngeen def ko yàlla na nekk seen kër ëllëg suñu borom kenn ku la ci def yaa ko xam waaye nag ñu ñaan yàlla guddee seen fan bàyyi leen fi liggéey bi yàlla barkeel ko waaw na xam lépp dañu ñëw incha allah taala kon daal suñu fa daa sàbdu ñaar waaw mii nii rek